waaw te nag ku ma gis ah tey fa laa fëlee ah tey nii laa si bi seet bi def suma Celeb Cripso comme na leen ko xamee rek every Saturday ma dugga ah, asin leen nga xamanta ñu nekk seen celebrity ngeen daal di leen am ah, fii si Gambian Talents TV waaye last week digoon naa leen ne ah, suma guest dina jugee dina jugee ko fi nga xamante ne mu nekk Casamance wala Guinée tey kan laa leen asil a ah, te dama dugg be bir kaasa asil len ki nga xamantene mo nek Ibuna jalo a ah, te mom la len amal ci bir keur gi way nañ tok setan ñu xol tay celeb keur bi naka la wara doxé te fi ci si bij bi biñ dala rek te a ah, amal len Ibuna jalo stelen cin ikanata e mashita ni nitetatati bafole kanatale nangata dukare na musuba itente ikomo subaka kana ya. wenge o oh, ni lenge Wa Gambia ah, comme nu ma leen ko waxee rek té dama bay Gambien ni yépp a dal di dugg fi nga xamante mo nek nekk Casamance comme nous ma leen ko waxee woon suñu djelbel asi ah, ki nga xamante mo nek Ibou ah, na diala way bala ma dem fu sore sore dina bay Ibou mo mu ngi fi mu dal di nuyo askan bi balaa ñoo gën xusi watan Ibou la nga gay assalamu alaykum Gambia alaykum West Africa di nuyu ñëpp it's your boy Khalil Ibou na Diallo from yéen a ma xam from fépp daal from Africa. ah dafa bañ a wax mu ne from bépp ah loolu la africain da nga ko gëm <laughs> ah waa léegi ibu ñu gis la fii tey si Gambia eh, yow balaa sax ñu gën a xuus xuus xuus yow kay nga doon musique officiel si boppam. yaa sama carrière musicale maa koy door eh, 2019 2019 laa door di fowantu bagage yi muy ñëw si man mu nekkoon si man ba 2010. eleven xama laa door def sama first single xam nga Casamance boori Sédhiou boobu suma papa la ñu affecté woon side boobu noonu famille bi yëpp nekkoon fa ñëw ba Bignona Ziguinchor delluwaat ba suma taawoon fi ma dëkk quartier dem ba dakaar ñëwaat ba jingaakee dooti fa jàngaat xam nga afta mooy loolu jingaakee nag laa mujjee jàng fa laa bàyyee jàng. bàyyee jàng lu tax lool. dama amoon problème biir sama biir moom ma doon sonal looloo taxoon xam nga. mo gëna tax sama jang bi mënutoon a dem. sorry waaye natta jamm wa legi euh sa family dafa am ku di woy bala nga doon kat wala. non euh, bot mën na né woy dafa nek sama family bi ko sama yaay euh, artiste bu mag la dafa dé créer ay woy comme leul bu amé ni dafa dé créer ay woy comme nga gis nit ki rek nu mu mel nga daal di nga daal di koy woy quoi understand sang waaw loolu nekkon na ci suma mom bi mu mënon tamit entertain torop mu mënon a fecc torop xam nga foog naa nawet waaw xam nga yaboy munta jur caalo. <laughs> loolu am na solo ah yaboy kay munta jur caalo yéen a dégg loolu ah waaye léegi yow sababu la moo la dugal si musique. lu ma dugal si musique non ma musique bee ma taana on est sang musique bee ma taana man du man maa dugal sama bopp si musique mais ah. musique bee ñëw dugal si man ma. fi na la ooy oh, xanaa daf la ne kaay kaay kaay. ah boo yow tamit <laughs> bot xam nga rek nit. da ngay juddu mu am li nekk si yow te xam nga doo ko xam quoi nga koy defantu wala di ko fowantu mu dem mu fa si yow nga xam ni carrément man lii sama yoon la quoi wala nit ñi di la naan lii boo si jàppee lii sa yoon affaire yi demee noonu te waxuma la nag yow nga si yëngu ngay gis njëriñ bi da ngay xam ni carrément mais jànguma ko mosuma toog school naan damaa jàng musique ndax wala damaa jàng nu may entertainment wala nu may yóbbuwee sama musique non. doo doon déglu kenn si woykat yi ñu taxoon sax nga gën a bëgg a def yu fi musique. yeah yeah yeah na. da bari na bon du ne ben artiste la bari nañ fofu fofu Casamance comme fi tamet Gambia da non na degula artiste yu mag fi Gambia comme tamet ci saati aduna bi internationally ñu ñep ñëpp dama leen daan deglu mais ma gis lu ñuy def sama affaire yi neex ma man tamit ma indi suma tuusi bopa bi nga doore musique ndax sa wajuri duñ daan naan de do def musique li ngay def ah xam nga ne africa lolo fi xew nak ah <laughs> waaw ah, loolu moo def fi sës moom. waaw waaw fi si loolu moo fi yàgg a nekk xam nga mais bu fa gëm-gëm bi nekkee rek afta nga nga dee def différence ñu koy gis ñu gis ni carrément da nga ko bëgg a xam naa dañuy mujjee di la support quoi man noonu la fa demee si man. Ah. loolu la waaye léegi da ñoo jox benn freestyle si sa bi. freestyle. tàngale <laughs> tàngale ñu dem si boobu. la moo tax nga tàngale. soo paree dang ñoo wax loolu sax si boppam. woy bi lu ko tekki sax dang ñoo wax. yow lu tax nga ne tàngale te xam naa du soo woy du eh, exactly xaw ma boobu rek but like dama dee gis concert yu bëri dee dem boobu nga de uh, like boobu nga da ko dee ibee sax géew. waaw léegoo léegi da ko dee ibee gooy ma ne waa lu ne si woy bi dina ma ko wax waaye balaa ñoo ñëw si dang woyal ñu boobu njëkka <laughs> i ñam boom yàlla tere manu jikeroora inyam boom nene yalla tere manu juroora inja bu jabatem inja ja tere man tere glewut atumbe goren ko sinki tike ko nyali ko toliro yawo yo mawdo jeju atumbe goren ko sinki tike ko nyali ko toliro <laughs> wa wo zuba bana mo like like kuma toge tan mo ko dem no way dama ko love so wàññi la mu nekk concept woy bi si bopam because ñeneen ñu fa dañ ko dee déglu ba xamul concept woy bi. yaa concept woy bi mu ngi eh, inspiration mi si bopam fu mu jógee muy ngi jógee biir Casamance si ben dëkk bu ñu naan buyal Boyal benn mbër mu ngi tudd Zibote la dëkkoon ñu demoon fa so afta mu amone ben maire bu maget bi ma doon xamantel mom moma ne no tuddu ak fo dëkk ma ko quartier ak laa tudd eh, Ibu la tuddu wante quartier ak laa dëkk quoi mais maire bi xamone na quartier ak lu yag quoi man la wax. kooku mu ngi amee ay nakal ngeen di waxee cent cent cent cent hundred. Ah, am na moo daan hundred years kon nga xam ni maire bu màgget la moom moo ma doon wóyal di ma feccal di mu naan karcaag tàngalay tàngalay bi ko so dama ko wax ne man karcaag laa tudd kaa moo xamoon na history karcaag bi nekkoon na karcaag te si laa ñëwaat studio si uh, suma producteur bi ma déglu ma ne ko jox ma benn bit dafa am lu nekk si man daal waaye tempo bi daal lii la. si la ma xoolal xoolal xoolal mu jox ma biti affaire yi nekk xam nga noonu la woy bi ñëwee si man ma inspiré ko ma bind ko tamit guddi boobu noonu biiru studio ma xam ni kon lii bu génnee rek dafa def xit quoi because lu ma fa wax la histoire bi nu mu fa demee yeah. te def na hit sax si boppam waaye léegi lan moo nekk tàngale boobu noonu tàngale Karija tàngale yu. tàngale tàngale moo nekk tàngale mooy tàngal si joola quoi. man sax loolu laa dama ne déedéet xam nga ñi moom joolaa kaasaala balaa ma ñëw wax lu ma xamul waaye loolu la may nduru daal mint. waaw waaw noonu la demee mint xam nga mint mint dafa nekk symbole even ñun ñu ne ko symbole. di mint dafa nekk symbole si joolaa si soose si làkkat daal comme boo amee ngénte wala nga am. Euh, mariage danga nga dee isi minti bi nga ko société bi ne leen carrément sama doom dama ko maye waaye minti bi mooy firndeel nii xam nga xam nga nit si loo ko yégal loo ko boole lu ne dafa bokk si loolu donc minti mooy tax ba ki nga ko indi mu daal di bokk si yow sa xew bi understand nga loolu dèjà loolu symbole la si ñun suñu culture bi rax si dolli quartier ak senta la woon maa la wax jamonoy tubaab yi jamonoy nasaraani quartier ak senta la woon goo xamante ne commerce bi maanaam business bi jaay bi ak jënd bi dafa doon dox suñu secteur suñu side bi yëpp buluf quartier ak mu njëkkoon a nekk foo senta jaay even bi ñoo na sax bi ngeen di dégg understand nga boobu quartier ak ak bay woon léegi maire bi moom jamono yooyu noonu maire bi ma doon naan euh, karcaak tàngale jamono yooyu moom fekkee na loolu quoi si laa ko ne man karcaak laa dëkk xelam daal di dem si jamono boobu noonu mu may woyal karcaak tàngalee mu ànd ak fecc sama yaram di daal di daw ma xam ni carrément te lu mu doon woy dafa ma dugg quoi but karcaak tàngale tàngale is not my inspiration inspiration maire bi la waaye loolu moom ma gën a pousser sax ma gëna tégg wëy bi parce que lépp si quartier ak tangalé bi la tourner te yow mi sax tangalé nga ma wax té wëy bi tuddu tangalé ah déedéet ah, damay gis tangalé yi tangalé bobu non noonu ah eh, ñam boobu ma ne waa xanaa bii moom ci waaye xaaral duggal dugal fa tangalé bi mako waxé lo ko dina nanda iñam bo mi mo bi iñam bo mi yalla téré man ci keroora lool moy sama yaay bo sama yaay mi ma jur yalla téré ñu xolanté wa si bot bés nikité ki tey ñu xolanté si bot because yaa ngi dégg nekk si man sa doom bi artiste la sa doom bi bandi la sa doom bi nii naa wéy bi di ko isil dara xam nga bàyyi na jàng affaire demee noonu ma ne ko bés ni ki tey dootuñu xoolante waat because buñ xoolante waatee man damay rus dootuñu xoolante waat even man ñëw ma ma isil la ndam wala nga gis ndam sama kaw loolu laa doon expliquer noonu si koros bi na solo eh, awoy am na solo dégg ko expliqué ah. ñu ngi laa naan njaabu jaabate mooy reykatu amul moo amul liggéey sa doom bi reykatu teeñ la mu ngi fecca kumpo yi mu ngi si dem mu ngi fu xuma mu ngi mu ngi xam nga play mu ngi faa donc kii mun dara xam nga ko nekk di wax si woy bi goren ko sinki mooy maanaam na nga yëngal see loxo ah. bo waxin la yëngalal say loxo sa doom yi fekk la ci biir maanaam jugal nga yëngatu nga am si li nga nekk su ko defee boo juree sa doom sa doom yi màgg ñu daal di lay fekk si yëngatu boobu. waaw léegi nii la ñoo def rek dañoo doxantu ñu daal di continuer waxtaan bi. te bi seet laa nekk de eh, mashita nitetatatengi bafolekana tale nang'atadukare kare na musuba itente ikomosubaka kana maleya wengeonilenge bevinaniyolesumbe galiyo imang'utakeneleta ngaliyo imavutakena kanutawawa bareyo jakumbe kamanuteupa kamang'ni mang'ikuwuja tupak bebo tripak My baby nani yole sumba. Wakane wakane wakane. Esumbe. My baby nani yole sumba. Wakane kirekto wakane. Nani ngwale tieke ne kori mate sumbe. Nani sumbut pani unyeta rekom ni nyet. Nani jalo bete fono pani put fakor. Ngwale tiole sumbe ni wakili mani bakor. Kambu kamo. Nana ukamo. keneleta galiyo imabuta kena kanuta wawa bareyo jakumbe kamanute pa mangi kuja tupak bebo tripa mabebi nani yole sumbai ekunume esumbe bebi nani yole sumbai tatpanikimi ibanibomi kakima kati ton by ton jatono mani regi jikeromani seni kamangi mangi kuja ton nane ito dikamo sumba yoito nani kontane nje kaya ben hani funyete abi danzere pour la santé galio imanguta keneleta galio imabuta kena kanuta wawa bareyo jakumbe kama nutepa kama nimangi kuja tupak bebo tripa kesumbe my baby nani yole sumba wakane wakane wakane esumbe baby nani yole sumba wakane kirego wakane Iya mane iya eh, ya. yo loddi yade si waxtaan nga kan mulai la dee bindal sa woy No, war a bindal. non yeneen artistes dañ lay am nit dañ leen bindal ñom ñu dal di ko kal askan bi ndax dama laajte rek na yow dañ daan yaa ko dee bindal wala kene mo la ko dee. non ñooñu du ñu ay artistes ñoom dañuy artisantu. waaw artiste man dama fi laag ni dama gis ni pour mu gëna nek wala mu gëna nek mu gëna tok dal mu doon lo xamanté li ngay woy dafa joggé ci yow understand nga. ye am ah, ba ma bëggé ma bindal woy sax xanaa nga woyal ko sa <laughs> ale am léegi wax ñu euh, métiti binda wooy naka la wala dafa métti wala méttiwut yaa amul lu yomba lépp a métti waaye boo ñëwee nag si woy dinaa ne tamit métti na méttiwut fu mu méttiyee mooy euh, time la because pour nga am temps nga daal di toog xam nga yombut te man dama dee bëgg même bu ma fekkente ni woy bi yëpp dama doon fooyante ak moom mu lépp mu daal di ñëw nii mais damay damay gis ni foog ma bind ko because dafa am solo yaa ngi léegi temps bi nga may loolu noonu pour bind bi temps boobu noonu xam nga coono baa si waaye yaa ngi bind yaa koy fiil xam nga fa la neexee tamit quoi. waaw <laughs> ah, loolu nga yëg ko rek day dem. yaa léegi mun nga ñëw wax binda woy yow noo dee bindee woy is loo dee dunda loolu nga dee binda nga woy ko wala nu mu fa dee demee. lu si bëri noonu lay demee lu si bëri noonu lay demee si loo xamante ne mu ngi am waaw dama ko dund dama ko dunda wala suma benn ki ma jege daal wala xam naa nit koo xamante ne dund na lool noonu da gis ni du am tricheur du am tricheur du am maanaam gis naa ko du nit ama ko netali xam nga fi. te moom kay wax naa nit yi Casamance daa leen amal de suñ suñ olof yi olof yi Gambie olof yi <laughs> fële dañoo jaxas mbaxas nii rek <laughs> ma ne ko dañoo jaxas mbaxas rek soo understand leen gars yi ah. léegi yow ñaata song nga génne sofa ñaata songs. Mm, mm, mm, right bu ma demee show mën naa play ba ay dama dee play ba ay 21 24 yooyu laa jàppani daal xam nga yooyu maa ngi koy play right now waaye yeneen yu si wees yu si ma jot xanaa ma jël suma taa ma compté waaye. Ah, itewul la wala lan. non na ma wante dëgg xam nga. waaw waaw. bon xaw naa sakkan macha allah ba waaye fàttewu ma nag bu ma jëlee suma temps ma xam depuis fii fii ak fii ak bu ma ko compter rek dama la wax ñaata la waaw fu mu nekk nii weesu na daal moo daan 20 yooyu noonu. ah am na solo bu baax a baax léegi ah, wéy nekk loo xam ne dafa yomba tamit soo ko def xaalis moo la dee gën a yóbbu si kanam yow boo dooree musique ba tey sax xaalis nga dee dugal wala danga am ñoo xam ne ñoo la dee dimbale pour nga def loolu. non man sama xaalis laa dee dugal ci musique suma maa ngi suma first songs si yu ma doon ma balaa ma ko doon record boobu la laa demoon ma demoon defi maçon ah. waa pour ñu feema ma journée euh, depuis huit heures eight si suba ba four si ngoon ñu fee la deux mille cinq cent xam nga noonu lañu ko dee waxee. Ah, <laughs> léegi si deux mille cinq cent ma def loolu two weeks ñaari ñaari weekend ñaari semaine xam nga. ma am si xaalis bu bëri ma ne lii dama ko jëndee yére lii dama ko jëndee dama ko demee studio xam nga donc mu leer na ni maa koy yàgg a rabalabal suma bopp ba tey jii nii sant yàlla xam nga macha allah daal lu si kanam raw lu si bëri. <laughs> waa léegi yow xanaa doo daan bindal compagnie si wala nit sax ñoo xam ne mën nañu laa jàppale pour ñu jàppale la wala yow yaa fii like ne rek ah xaaral ma defal ko suma bopp. waaw compagnie yi euh, musanguma bindal compagnie nag. sanguma bindal wala ma yóbbu suma leetar compagnie even suma sooy soo boo gis boo xamante ne man maa ko teg ama sponsor man maa ko dee def ak ma leen waaye dama gis ni carrément dafa jotangut mais bi tamit time bee ah, xam a young person nga nekk di def musique léegi for so long bi naka la mel bi naka la mel daal yow as a young person nga nekk di def musique yeah yon bi dafa sori lol gudda lol beuri tamit ay xaxam quoi bëri ay xaaxam wante dañ ci def suñu la katan nit ñi tege suñu tank ñu bara ñu baña deug ci xaxam yoy nonu quoi yeah dang dan euh, dal ak dajé ak i jafe-jafe wala nu fa démé non ah waaw lolou mun ta ñaaxala bi yeah ay jafe-jafe yu metti sax du metté metté metti mais sante yalla xel bi da ci nek ñu xol tamit nan lañ koy dévier nuñ koy moytoé ah. waaw léegi nañ demaat ak beneen freestyle mu ne naka salibo salibo oh. salibo salibo <laughs> salibo salibo mate durang mate nyankatang salibo salibo wano sangi senon pani yap salibo salibo mate kure mate manayu salibo salibo wano sangi senon pani kati gambi ni safu na jalo salibo Paila sitani wonke njeni mama njiboma jila bombunu seli yale seli yale kasuma sista kama balorale ema be waya tibulai <laughs> waaw wooy wi am na solo torop torop dabi like tamit julli su jotee nit yi dañ ko dee di partager ku nekk ah Salibo Salibo ah. foofu laa njëkk a déggee woy bi sax waaw ma toog rek dégg sëli bo sëli bo rek ma commencé koolal kone ko si bluetooth bi fee ca kër bi yëpp ñu ne ma <laughs> ñu ne ma tey bii la ma ne ne waa tey xoola tey sëli bo la la ma la jox la pour nga woy woy boobu noonu comme ma la wax rek man lu ma dund euh, nara leer ni keneen ak keneen mu ngi koy dund bi koosof nit laa te kooku tamit nit la ko donc man si dund bi laa dee gën a woy no sànga euh, dama xam ni Salibo Salibo événement la boo xamante ne ñi ko fekkee ku ne ku nekk ko fekkee at bu weesu rek bu nammee ñëwaat sali boobu bu dee jullit na amaat yow boo ko fekkee sa xel day dem si daaw ni la demee woon kon ren fekkee naa ko alhamdulilah rabil alamin ma yuus si ay ay wax yoo xamante ne amaana bu ñu jógee julli wax yooyu noonu la ñuy jàmba sante naka la ñu jullee comme bu ma la neyoo tey naka la ñu nan nga maa tontoo julli nañ si jàmm nañu jéggalante ñu fekkee kay at yu bëri loolu moo ma inspiré xam dafa fréquence trop si làmmiñu nit yi every julli bu ñëwee ma ne lu tax duma def sound bii nii mu doon sound boo xamante ne even man néew ma fii sax non sound bi dafa fi nekk loolu rek laa si namoon te macha allah. waaw ah, eh, dafa overheat because like mostly am na ñeneen sax duñ joola bo dañ love song bi because of salibo salibo da ngaa gis ñu seen ko sax suma salibo. Masalibo so loolu I think dafa dafa nice trop léegi like dama dee gis tamit danga nga dee dem concert yu bëri biir Casamance da nga dee organise tamit concert léegi eh, naka la na lan nga dee yëg uh, like nga oo nit yi nit yi ñu ñëw uy la euh, mbégte ak gën a gëm sa bopp ak tamit loolu noonu ngay gis action yooyu noonu tamit mu lee gën a yar mu lay gën a yar mu lay gën a defar nga gën a nekk nit nasaan nga parce que tey jii nii di nga woo di nga da woote waaye waxuma booy woote doo xale yi laa bugg wala mag yi laa bëgg da nga woote daal képp koo xamante ne tànkam oyof na mu daal di ñëw mais dinga fa gis mag di nga fa gis autorité dinga fa gis xale di façon nit bu ne nga faa gis mu leeral carrément ñii ñëw na ñu wuy sa woote bi donc ñooñu noonu amoo leen lu dul euh, delloo leen jukkal xam nga wan leen ni carrément man ni ngeen ma supporté ni bu soobee yàlla man tamit du tas seen yaakaar parce que yaakaar a tax xam nga gars yi di la feeñu understand nga mu doon loo xamante ni tamit daf la over defar nan la lay defaree da ngay moytu tey jii nii kooku noonu ki nga woo mu ñëw mu daal di lay fekk si yenn yi wala mu gis la si yeneen yoo xamante ne dafa discourage bu bu ëllëgee boo ko koolaatee du ñëw understand nga waaw moo tax it yaa ma gën a xam daal booy. <laughs> waaw loolu am na solo tarap tarap waa léegi la yow lan nga ñu mun a wax si musique yi Casamance musique Casa naka la mel. musique Casamance eh, sant yàlla tey jii nii Euh, comme lu may gis fi Gambia amaana loolu laa ne dinaa maa ngi koy gis Casamance révolution bi am na te tey jii nii euh, boy si wala boog jeunesse su Casamance bi ñu ngi consommer ñoom loo xamante loolu la ñu moom seen doom yi lu ñu leen di jox wala loo xamante ne africanité bi surtout ñoom loolu la ñu moom understand nga lu ma lay wax nii waaw sant yàlla wante yombut nag te soxla na musique Casamance bi tamit soxla na ndimbal soxla na industrie soxla na xam nga. soxla na comme lu nekk Nigeria understand nga xam nga yaa ngi understand. waaw uh, music uh, international. yeah yeah yeah yeah uh, pro baax yi produit ay ñëw xam nga amay records label amay defarkati vidéo yu baax amay understand nga luy dundal musique bi quoi thank you. Ah, ne ko luy dundal musique mu correct rek xoolal jox ma musique video sitting si baax producer ñu def lu gara biir Casa loolu lañ soxla <laughs> waaye dina am incha allah pare euh, ñafekat yi tamit ñu ngi foofu noonu biir Casamance kenn mu ngi taxaw ndaanaan la foofu noonu waaye Ibu lii la ñoo def rek tey bi seet leen nekk rek te dara fi yomba nañ dax doxaat dafaat nii rek xoolati bi naka la mel nga faral ba xamu leen géej. <laughs> Ah, ok léegi wax ñu naka nga gisee ñi nga xamante ne ñu nekk promoters si si Casamance wanaa la xaw ma noo leen di ooy promoters promoters laa mun. yow promoteur ñu ne ko promoteur. promoters of music. ah su fekkente ne am na ay promoters musique Casamance dëgg rek fa ne yàlla man da gisaguma ne man suma fan si ñoom a dee promote understand nga man suma fan si ñoom a dee promote ak ñu dee support suma musique bi ñun laa gis ni carrément yeah te ñu ngi si def seen kentu laay kattan si man because su ma wootee ñu wuy si ma xam nga loolu rek rek rek macha allah quoi waaye pour wax ni laag ni diw promoteur la mu ngay promote musique Casamance moo ko nekk di def bu dee am la man gisaguma ko ok ah, dama dee gis tamit like sa yeneen woy soo ko génnee ah, da nga si dee rax soose like kañeen di kañeen foog naa boobu sax rax nga fa soose ah, lan moo dee tax soo woyee nga fa dee rax beneen laaga waaw loolu moo nekk West Africa melting pot bi xam nga da gis ni boo demee ba biir Ziguinchor ba yoo Gambie sax fii da ngay gis ni soose yaa ngi saayit bii nii kër gi soose la kër bi joolaa la kër bi njaago la waaye ñoom ñoo dëkk benn koñ understand nga léegi boo yaroo si loolu noonu naam nga dégg soose wala mun naam sax ngay fortantu yenn mooy njaago yi te ñun Casamance loolu moo fa nekk Gambia fii tamit loolu moo fa nekk so eh, loolu moo tax xam nga damay bëgg partage partager public boobu yëpp ku si ne nga gis si sa bopp because ñun la quoi. ana xamna naa dee ragal a rax gars yi français fofu way rahal rek te la nañ understand e te tey kaasa duga <laughs> no graw yo mi sa ya mo ya mo yo ko anglais te yo ba la ko français da nga wara wax touti mo français nak tamen eh nga mo ñu daw <laughs> No, duñ daw duñ gëna happy <laughs> wa legi mais ñu freestyle si way bobu nonu ak kañeen di kañeen bala ñoo demaat benen question yeah kañeen di useno kang'eni tikeni kang'eni kanyen di kanyen dede futok dede futok unambenjadi kanunyen kanyen di kanyen mite mana naneni namang'ene karaneni kanyen di kanyen a kanyen di kanyen kanyen di kanyen ei aling'anyo mutany ndunia kono amulok vikofi jarwai lepulo muta amburbelako jagle nankoje mabokak domi adamai bëp bëp bëp ah, loo fi am rek sa ko boo ah, koy ak askan bi rek da gën a am waaye soo amee pare nga ne déedéet doo ko génnee <laughs> su waay <laughs> dina metti sa kaw dem waa léegi ah, kañ ñeen di kañ boobu noonu tamit da nga toog noo ko dundee ba nga ko woy parce que da nga ne loo dee dunda wala keneen nga dee woy yeah kañ di kañ ñeen mooy loxo ak loxo boo jox ma sa loxo ma jox la suma loxo buñ ko boolee xam nga xam nga buñ jàppantee dëggal na thank you te loolu laa wax déere fu toog déere fu toog una me njaari uñan loolu mooy si joolaa fii juróom fii juróom boo ko boolee doon fukk waaw am na beneen nag xaw ma is it esumbe <laughs> <laughs> la wala du noonu non dégguma ma ne esumbe la wala nekkul beneen wóy bi balaa maa wax lu ma xamul non dama bëggoon nga wax dama bëggoon nga jaaraat si quoi eh noonu la esumbaay ok esumbaay léegi wóy boobu noonu mënuma ko nag waa lan moo nekk tamit the whole concept of that song concept bi mooy xam nga kon. xam nga yéen Kaasa sa ngeen di use lan léegi lan moo nekk euh, wax kaddu euh, boobu noonu sa woot boobu noonu aw ma esumbay wa wa. esumbay mooy tux yee ah. smoking. Hmm. léegi breakal ñu daan woy bi yëpp. xam nga woy boo amee yu mel ni sa caméraman bi dañ <laughs> <laughs> every day xam nga buñ gisee nga taal cigarette dañ la dee ne non man laay guma lii xam nga ak sa xam nga lu ma lay wax <laughs> waaw loolu bëri na fi nag quoi ci yoo xamante ne duñ bëgg seen xam nga seen ñu dee tux xam nga loolu laa wax si sound nee na naa bàyyi tux yeah sombi loolu lay wax. bébi def na lu baax de bébi waxati ko mu bàyyi tux su ma tux ma wax ko mu bàyyi tux man sax bëgguma tux de. <laughs> Adam non bàyyi rek balaa maa ñëwee jege fii nii waa léegi nag mu nekk sa biggest dream boo xam ne achieve nga ko uh, si Mama in Tola. nii nii nii nii nii. yeah. right now uh, delloo si musique bi wala kon boog dundal musique bi nu mu waree understand nga uh, ñu feel like ni. bi mu ngi dund ñun fii suñu area comme tey jii nii boo nee musique ni ngay tuddee sax nu muy demee si Nigeria wala mu dem America wala mu dem gaana musique bi nu mu fa nu fa amee doole. even su fekkente ne man duma ko isi sax waaye naa bokk suñu koy indi si suñu saat fii. <laughs> Alla pulodi ñono yino artisol ni dijeelo e eh, buyo afo mana ileba animale fa nyanda fulayele tranquille boy, alle ay burut kanyen di kanyen kusenon kanyen itikeni kanyene eh. kanyen di kanyen dede futok dede futok kuna menjadi kanunyen kanyen di kanyen kusenon kanyen itikeni kanyene eh. kanyen di kanyen mitamanananeni namangenen karaneni katusenam kanyeni changeni mithe manananeni mukila na mangene karaneni usenu njatu nyenu tok niseni kusingivutok unambe njadi kanunyen kama tusenoralunen kangendi kanyen usenon kangeni tikeni kangenen kanyendi kanyen dede futok dede futok kunambe jadi kanunyen kanyen di kanyen mitamana nane ni namangene karane ni kanyen di kanyen kanyen di kanyen kanyen di kanyen ye alinga muta nyinde kene jichantenom ne kanye kanye kasadi masa kanye ni tike ni kanye ne kanye kanyandi kanye dede futok dede futok unembenjako sikunyen kanyandi kanyen na mangene karaneni kanyandi kanyen yeah. from the zion kanyandi Kanye, yeah. Japan sumo Mare popi ware nilang ine falingi wai Tikere kalakori na solo bu baax ba gis ngeen ko wax naa leen ah, ndaanaa ni amuñ Gàmbi rek ah, ndaanaa ni ñu ngi ba Casamance ah, last week dama leen promisoon ne naa leen asil bi nga xamante ne Casamance lay jugee wala Guinée waaye gis ngeen tey asil naa leen ki nga xamante ne Casamance lay jugee ah waaye léegi ñu continuer si waxtaan bi rek Ibu waaye balaa boobu sax Ibu soo eggee stage xanaa dafa am luñ la dee jox nga naan balaa nga egg stage. loolu ñu ma koy laaj bëri nañ de xanaa yéen lan ngeen gis ni man nan laa dem biir stage wax leen ma ko power bank lañ la dee plug. da ambiance wala di bit doorin ba endin. waaw boobu borom géej gi borom xam nga borom ngelaw gi ak borom borom lépp daal fee ñëw nekk suma wet moo tax nga dee gis lu garaaw. <laughs> Ah, because man sa uh, mus naa koo la uh, how to call it mus naa koo gis bu ñu demee Kabakel si village bi ah, because moom fa nekkoon di boo di pile. boy dafa pile ba man bu bi dama dama dama gumintu bot mënumaa nelaw. mu ngi wax ne ku gëmante na dem tëdd nelaw ah. comme li nga doon wax sànq. boo wooyee nit yi ñu ñëw wuy si la nan la dee def si yow xanaa kay doo woo askan bi yëpp ñu ñëw afta xam nga nga leen di naan ay déggoo déggoo taalin taalin ak nii la fa demee woon na sànq man dama dee joxewu quoi loolu mooy liggéey ma dee joxewu ma def. lii gën a nekk si man lu may may doole mooy damay xalaat ni non ñu ñëw seetaan si na jaalo nii ñu bàyyi seen affaire ñu ñëw pour soo na jaalo bi ñi dañu war a bég si man dañu war a kontaan te loolu rek. positif vage boobu noonu bu nekkee si nit da xam nga daf la dee doole daf la dee yoxal waaw mais du leneen tamit te man tamit time yi soo dama jàpp ni sama time yi foo la because sama time yi liggéey dëgg mooy saa de ma dee bind song si may nekk studio wante time yi soo moom time yi foo la time yi bëggee la understand nga donc. moo tax ko dee foo ba mu jeex mais raxas bool yi moom set wécc duma ko bàyyi gaay soo gis tey dama de waa xanaa kii moom mooy lan nag xanaa dañ ah, daf day am lu mu dee jël énergie bu mu dee jël balaa mu de ñëw egg stage na daf ni dee jaay garaaw garaaw waaye bul dégg maa ko daxa stage next time di ngeen ma gis kaw stage <laughs> léegi léegi laa yow tey ah, suñ la waxoon Ibu collabol ak benn gamben artiste ban Gambian artiste nga buga a collabol fii si réew mi ak lu tax yaa talent yaa ngi fi ay yu baax ay artistes yu mën li def ñu ngi fi yoo xamante ne dama leen over respect fi Gambia ñu ngi fi ba right now jot naa jot naa def sa benn collabo ak benn gambien artiste ku si mel ni attaque def naa ak moom benn collabo dafa génn ngut rek waaye am na mu gis ni euh, bu amaatee rek xam nga bu ko jaree tamit ma defaat ko yeah boo koy defaat kan lay kan lay doon ak lu kan lay doon ak lu tax ak koo xamante mu ngi liggéey jox na aar bi cër ku si mel ni esti xam nga nekk na artiste boo xamante ne man ak naa tamit lu muy def dama ko fil tamit ko quoi understand nga eh, luy tax mooy maanaam is normal because of mbooloo mooy doole te Gambia ak soose bi ak joolaa bi fu mu nekk nii imagine naa boo ko namee mix rek xam nga si na jaal ak est leneen la laa jox understand nga bot daal Westies yow yaa ma gën a. <laughs> waa shout out to ak ST uh, ma ne ko ñooñu tam leen fii si biir réew mi ñu génnee uh, relix yoo xam ne tam soo ko dégloo di nga xam lu ñoo wax ñoom tamit uh, ñu leen di jaajëfal bu baax a baax waa léegi tey bëri na ndaw yoo xam ne dañoo toog bugg a doon woykat yow tey ban advice ngay jox xale yoo xam ne dañoo bugg a doon woykat si kanam. waaw lu ma leen ci mën a yokkal mooy. bu ñu doon ay woykat pour juste euh, tour bi dama dama nekk man woykat laa nii rek mu daal di si yem quoi mais amal concept bi nga ciy duggee xam nga te tamit boo demee ba nekk si na si def sa kéemtulaay kàttan nga fulal ko waaw parce que tey am na kuy woy am na ku nekk si aar bi bi ko sof cepe yi ñu ngi ko yomba am na ku nekk tey si musique bi bi ko sof bu taxawee rek nit ñi dañoo génn si eh diwa ngi nii ngeen xam nga mission yi daal bokkut. mais nekkal si positive mission goo xamante ne yow dafa am li tax nga nekk si lii. even bep métier bu xam nga si way mëna nek xam nga ah loolu solo way léegi nak euh, comme que ñu ngi ñëw à wrap up with the program. duma dem fek laaj taw la tuuti tam si mbiri euh, Gambia bi fi ni parce du ñaaka da nga dee ñëw fi da nga dee gis euh, musique Gambia naka la nekk di no gisé gisee musique industrie Gambia bi num mu nekk di démé no ko gis waaw duma ci mëna sori bu baaxa baax parce que yàgguma fi tamet ndossan nga yàgguma fi no way dama fi ñëw di play waaye. maa ngi fi am tamit good relation xam nga fi amee tamit ay fans ñoo xamante ne gëm nañ na Diallo muy def bëgg nañ na Diallo muy def ma am tamit ay relation yu baax si mel ni ñoom euh, Mr Camara Matar Camara xam nga Mr Freedoms Jaban ñoom euh, Tasman from Fugitives xam nga mm, ak yeneen yeneen promoteur yeneen studio yoo xamante ne dañ dee taxaw affaire na Diallo yee wax dëgg rek fa yàlla tax sama xol sedd na si quoi yee sama xol sedd na si torop waaw du ñaaka tey na balaa ñoo ibu dinañ wax ban ceeb la gën a bëgg ban lekk la gën a bëgg tey non boobu duma ko wax si télé duñ ko wax de tey duma fi génn te waxoo ko tey ye pla boobu pla joolaa la waaw ca waxal nañ dem rek kabaja kabaja muy boobu kabaja kabaja boobu tey laa ko de mooy ñànkatang bi ak jën yu sew yi understand nga nga def si bisaa bi mu am kaala green and white bi. pemben. yaa ma a xam pemben yeah bu pemben am I like it I love it. Ah. yeah ni nga loof ko. foroxaay bi la wala jën yi wala. dafa ma day jox appétit moom laa gis ni bu ma ku ma koy coob damay sentir damay feel like damay coob dëgg ah, boobu suma cosaan bi la. ku nekk na nga téye sa cosaan Adam xamuloo sa cosaan dama nga liggante ko te nga téye ko ah man dam boobu laa a a de ku ko teg fii Ibu sax naa du ko cos parce que bool bi dama ko <laughs> ekkati daw ak moom eh, la aca laakal ñu dama la koo bàyyi fan nga cosaanoo cosaanee ya bee ma si yee eh, dafa bëgg ma fii nag mu ñoo lii mooy déedéet <laughs> ma ñu yo xam nga waxoon naa ko mu ñëw mu bëgg ma koo feeñale mu ñu bëgg maa ñu rusloo si télé bi fii nañ dem laakal joolaa dem. bunu kaane. naame. Hmm. akuregen bu. binta baaji. añan e katange sunsum kaccigol ma de sumut kaccigol. <laughs> yaa ma fàttali amoon na laaj bu mu stage ba mu ne man tey xaw wala. non <laughs> waxal li ma war <laughs> non ah, du ma mun a téye yëpp loo ma e wala neex na. ñankatang yi suñ sum kàccigul ma tey sumun kàccigul. ñankatang kese ah. Hmm. la ma kàccigul sa balaa maa wax. kon yow dégguloo Joola. ma nekk ma Joola kaasa so te dañoo def nanka nanka rek biñ understandante su ma ko comprendre rek dama koo dóor mu daanu léegi xool lañu rek. non mais naaj yaa ngi baax. <laughs> Ah, yaa ngi baax amul fi de nañ wax ma loolu. maanaam ba xam jàllale waraax ñànkataan neex na wala neexut. neexut di. ok kon yaa ngi cool si yoo neex na. neexut su fekkente ne yaa ko bëgg a neex na waaye su fekkee dañ la ko forcer moom neexut. neexut déedéet. aywa léegi mën nañu laaxa joolaa léegi bu ñu laaxa olof nañ continuer si joolaa. léegi moom laay bàyyi affaire yi léegi mu laaxa joolaa ma tontu ko. kama jaat pan suma mama quoi bu kanam kujola kamire jame mbom ja ñolora tiwul apalol ibuna jaaloo euh, nisal petit euh, petit di jeraat yi xam nga katika ni lay burom gambia burom xam nga ñom de lo bol bi kontaan kontaan da yabe han jabe mi ibuna jalo dede sukat gambia iba jot ba caama bolol ñu gën a jàpp nag gën a di leen jox daje on di 26 novembre moo nekk suma album launching bi yéen waa Gam Ziguinchor yaa si suñu stadium bi. Ah, boobu maa ngi commencé di paak balaa on di 26. nga war a def sax waaye sa caméraman bu ko essayé ceeñal caméraman kii waaw baax na ah, comme que li laal na si joolaa dinañ dugg si tuuti ah, Ibu Dia waanotee rek bu kana kiye kam bom kasa kam ko jikere ye bu kanon kam mi Casamance yaar ka di kamiri diaspora burom den de laban ye ka fiuma di yakara ji mi di buna jalo su njaare mi tele te tasmati na njaa boro kap kep njom di bo bu jom tutu lew jonna di salkate sukey eh, burom di salkati quartier ak kati département ti Bignona région ngati Ziguinchor Oussouye lobo carrément Ibuna Diallo le 26 novembre stade ali Sitoé Diatta ano santanam ɗi wano sara wanamen o kate mujojuk lancement yati album yati Ibuna Diallo stade ati ali Sitoé Diatta le 26 novembre yeah. ok njofo bilo ah, zik hein ah? zik ok zik muyama baja jabrun 26 november uh, is it november inshallah nyoma wilo bobu nya wa wanu baje po berek rek amba amane jaya fana na kankam brok pa jake pasi le jakila podi poti uh, lete la kenta ta ja yeah, poti mo kam i big mo jojo dakila from uh, q city ya yeah? ki no q q q radio yeah amite kan ko da mona jambom apalo nak yeah o pop nakana numan jone understanding e jupo jupo dakila mbati njeni mama erere yimbo kala ko di ibu hamga, pur pour nga muñal ibu fo nga xam nga mu kanana no man ne mi tewo ni ne sigiru ka parce que jesu mut kala ko ni joje ke jio ah, donc dimani no koor mi si tana su mbon si jupe dama dama dama beuri luma bëgg ah. ma beuri luma bañ mo taxit ma la xam nga xam nga xam sa bop si jaamu yalla la bok dama xam sa bop comme na sanga donc ko xamantene mu la understand ak nepp yow nga xam dem ma xam ni man ak numa munta mel yep ki mu ma understand mu ma support xam nga kooku bu demee ba si biir euh, bu bajot jaawu jee beere go saa bee lobo nu mu tuuti tuuti nañ jaaw an pour lobo a baraka di ñaan yàlla nag mam bu roka ba fa mam bu jee fëccul di ko jëf di ko bëggee di ko xamal ne di ko di profité si télé bi di ko ne manager baalal ma bi ko sax sonal naa la trop xam nga waaw sonal naa ko trop mais lépp tamit si liggéey bi la quoi te de mu ngi siy def kémtulaay kàttanam mu ngi siy def lu mu mën tamit car macha allah fiir naa ko manaja kanija wari ya hini kena kenen di table mu baju goreng gisim ko kabanga manaja bu ma defee lu ma metti dama de dama de génn kër gi ma dellu kaasa après <laughs> ma dem kaasa après mu fekk ma foofu ma xam ni yee eh, ni la ma <laughs> mën a demee manaja bi si yàgg daf la war di teg table mu mu mu mu laal tuuti comme time primary school teacher yi nuñ daan def student yi ah mu su lambee benn yoon next time dina comprendre non jaruta door sax moom nu ma dee dóoree moo gën a metti ñu dóor la xam nga jarta door ko xam nga ana no man o uma mang man loyi wala man jak titora yolo xam nga bu toogee mu aju faalewut la daf laa metti da bo gën a door bo gën a metti yaatu bi da ah yeah kon uh, sara studi manager uh, manager bi ñu laa jaajëfal bu baax ba ci si sa liggéey bu baax bi waaye tam suma brodo bu baax boobu di uh, petit foo munti nekk wattu ji rek maa laa jaajëfal bu baax ba léegi xam naa programme bi nag ñu ngi ñëw rapport waaye balaa ñoo dem ibut na ñu mayaat beneen freestyle euh, ñu daal di close programme leen janjam ku jóolag ñu janjam kay wano sanni regenu lob naani sumo sum <laughs> nañ dem naani sumo ah. sum sangoro wano sawandi kano sangoro wano sawandi rego eh booy yaa ngi bàyyi note bi di yow yaa ngi jàll de yow yaa ngi bàyyi temps bi di booy Kasangoro wano sawandikano nane sumo sum akila wano sawandikano nane sumo igoro jafu chengafu nane sumo sum inomo jabo jali jali nane sumo sum iteko jakarabake bodone asumde takaraba kanga eh, eh, bomme bambet ay sum de ha ha alegish Ibu dafa ñëw tek traakam bi fi Ibu hanga daf day jaay dafa am energy eh te laa ko wane mané ka énergie bank yooyu ñoo def compétition fi Setan lañu so leen paré ngeen dropal ma seen comment ngeen wakkan moy way bu den ko ba ngeen waye ya, mo win de may win nañ dem si boobu te ñëw papoli papoli African. Wow, wow, mulka Sangena. How, how, yo yatisi enas, barengau, ngau, yatisi jangona su. Samba, samba, urobedame. New style, stop talking, au karka Sangena, katumakarenyaka tebe. Samba. sóora sa boppa li tax lamiñ ko xamal di ko del mi nga karaku si mi nga nanu sanke nami nanu wakili mi sanke jom baw jalo mana sirus the fire because today I'm very high, high to run, I'm a buy. Whatever had, I never spin. Why? waaw gis ngeen ko voilà suma caméra lady bi mu maa fayta mu maa ibu moom ibu wiinut ma de drabal ma seen comment yaa ngeen wax ma xoolal kan moo win mbir mi xoolal it's all about fun tey ma ibu ah, na jaala laa fi amoon gis ngeen ko ah, it's all about entertainment celebrity show rek lañ wax dara du fi nëbbu lépp dee leer waaye balaa maa teej ibu ah, dañ dee wax ne ku nekk si aar bi rek daf dee bugg a cepe ba boko ko ñooñ dafa lay bëgg a laafi jigen lay bëgg jigen kan wax lolu koku ah du man de nit ya ko de wax xana artist yëpp tay taka jabar wala fitay duñ de taka jabar wala fitay duñ de ah, mm, mm, léegi la ma tam bëgg nga tontul mako no koku yo ya. bëgg xam no no no no no du man de nit ya ko de wax wa artist artist métier lay comme yeneen métier donc nek artist nekul ni da nga wara bëgg ci ci cëppe ba force motax bi nga don laaj sànq ni maa la naan bi nga ma doon ne bu lan laa am pour wax pour new generation koo xam ne mu ngi bëgg a dugg ci musique may nag bul dugg ci musique bi ko sof da nga see bëgg am tour wala bi ko sof cëppee ñëw tax xam nga waaw na nga conscience na nga conscience si loolu noonu waaw mais artiste am na droit am jabar am doom feri demee noonu waaw boobu moom am na droit waaye comme dañ leen ne daf di comme fu mu dem rek am na fa jaaxa boo xam ne bàyyi na ko fa fu mu dem am na fa jaaxa yàgg naa ñoo gàmmee waaye doo fi ba ñu ne jaaxle yu baa ngi nii de. Ah, waaw ah kon de kenn la si ku set ah mu ne am fa cafe. waxuma la du ma dee dem fenn. Eh, Gambi la ah Gambi Gambi waaw Gambi waaw. waaw xam nga maay bàyyi Casamance ma cafe ma ñëw ba fii Gambi ah, waaye tamit ma daje koo xam ne mu ngi sama xol bi nopp na ko xam amaa <laughs> nekk ak moom eh, yow man su ma nekkoon ku nekk Casamance soo ñëwee <laughs> si bunti kër yoo kuri kaay laa la taxawalee balaa ngaa egg si su boobaa di nga xam ne wala dégg naa loo wax si télé bi waaye lii la woon rek ah, tey seen Celeb Cribs la fi si Gambian ma amoon leen daanaan bi nga xamante ah, ba Casa la jóge ñëw ah, di def entertainment tam fii si biir réew mi di Gambia li amuñ dara luñ ko wax lu dul ah, jërëjëf tamit yal na misigam bi dem ah, si kanam ak kanam ak kanam ak képp ki nga xamante ne yaa ngi ah, def li nga xamante ne moo nekk a musique foofu sa Casamance wala sax fii si ñu laa ñaana yal na sa musique bi dem si kanam ak kanam ak kanam waaye jëlal ñu suñ outfit bi te nii lañ def ñëw rek fii si beach side bi dafa nii xool ñu Joola aka mën a sañse ah aka mën a sañse 26 <laughs> novembre fekk la ñu foofu sa zik di kaasa xoolal sooy ñëw xam nga Kaasaa dafa sori te zig lañ wax de yóbbul ma xoolal xaaral ma estimate five daala soo yóbboo carax nga yóbbu high heel nga yóbbu eh, sport shoe hmm? yooyu yëpp col bi su waree génn wala carax bi mu jéem a buddeeku nii rek nga assurément ñaari spia yoo xam ne yooyu nga <laughs> yooyu nga sol pour replacer ñoom parce que affaire yi du yomb ibu moom. su eggee stage daf demee ni comme nu ma leen ko waxee rek MC 99 ah Sarah Stew suma brother boobu sax waxut dëgg su eggee kaw stage ah <laughs> waaw la waaye Ibu ah, tey lan ngay finaliser fii si Gambian Talents TV. di kontaan seen émission bi di leen ne carrément jërëjëf man euh, kontaan naa seen émission bi euh, ni ngeen ko defee ak man di siyaare ñëpp di lob carrément. amitekaanka suumee ko piyoon nde seenu rendez-vous incha allah le 26 novembre stade Aline Sitoé Diatta Ziguinchor panu wonu faama kee jóg na jaalo a 26 a november o laatuji puraji jawbankonem a ah, zik manji rammena uma kamme a broda olla ibuna dialo aromol yasteje e kan nan mante kesuku senole mana rani ji fay manjuɗa waji dia a ah, 26 novembre mo jiju ka ola tu wona tum ɓe kane bo par ce jijuk walla wanji famume juke pon jijama jiju ka wanji famume juke wawi mbokkay mo bye bye ba next Saturday inshallah fi si Gambian Talents TV àndoon ak uh, suma camera lady boobu noon di Adam Jeng as usual ak Binta Badji la rek woon. kon na jàll mu ngi ko nuyu Baatulaay musanguma ko gis nag waaye maa ngi dégg say xibaar maa ngi dégg say mbir na jàll mu ngi laa bu baax. Ah. waaw dégg nga loolu ak mu laa bu baax a baax kon nii la woon rek Asset Celeb Cribs la bye bye always stay tuned si Gambian achinene kanye kanye kasadi masa usenoralungen kanyandi kanyen usenon kanyen itikeni eh. kanyene kanyandi kanyen dede futok dede futok unambenjako sikunyen kanyandi kanyen mitemanananenina mangene karaneni kanyandi kanyen yeah. from the zion kanyandi yeah. moja pansumoho marekopi warenilangene falingiwai tikerekalako tikusum imanjirwani vilelambi elupu yakon uware tutekoralai ekonyola yakon esukula yakon bukane panu tikoral kanyendi kanyen kusenon kangeni tikeni kangene kanyendi kanyen kusikunyan kunyenunyanu nambenjadikanowei canyon, the canyon. Yeah, yeah. Canyon, the canyon, oh. Canyon, the canyon, yeah. Yeah. Alla buloji ni nyona, you know. Ni doni akona fenti, yeah. Nakeda mu mission moleti, anyan tarafet lane, you know. Konda power and nice. Everybody fall big up. By follow abene ka fonte na buloji nyona. Ina di casa di masa, ina di Africa, you know.